en même temps maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao donc kaddu yi ñu fi ñëw tey pour yëkkati euh, ñun député yi euh, fekk ñu nekk ci yoon ñëpp xam nañ ni tey mënuñu toog parce que dañu nekk en action ñu ñëwoon juste pour jàllale ñaari baat yu am solo yaakaar naa ni euh, benn bu njëkk bi mooy député yi ñu ngi dénoncé li ñuy wax kidnapping li ñuy wax séquestration bi am ci président Ousmane Sonko parce que man maa ngi woon ci biir caravane bi caravane bi ñu nekkoon caravane jàmm la woon caravane liberté la woon. ñuy dox di dajeeg ay nit ñi nga xamee ne bi nii jàmm rek ak mbégte buñ dajeeg ñun lañ doon am ay benn nguur goo xame ne bi nii benn tyran wu tudd mag sàll moo ko jiite benn démolisseur des institutions bu mel ni mag Sall moom moo ko jiite amul benn solution bu muy indil Sénégalais yi budul euh, lépp li nga xam ne dafa jëm ci nasaxal démocratie mooy maanaam man rek maa fi existé keneen du existé yaakaar ni moom dafa bëgg a nekk jimboori ku def dara mu dóor ku deful dara mu dóor loolu lañ wax ni tey moo tax ñu bëgg a yëg suñu baat nous en tant que député wax ko ni moom institution la yor ñun institution lañu donc il n'a qu'à respecter les Sénégalais parce que en réalité ce pays là moomu ko ay waajuram moomuñu ko beneen bi ñu si bëgg a yokk mooy lépp li nga xamee ne bi nii jëm na ci caravane boobu mu yaakaar ni arrêté na ko wu ko caravane bi li ci wax yaakaar naa lu leer la moom moo xam ni ñaari fan yi bu mu weesoo seen jëf yu ñaaw yu ñu buggoon def ci kaw askan wi ñaaw na ñaawaay goo xam ne moo tax mu dellu si waaye jàpp nañ ni même buñ ko indi woon doon dellu si mais li am solo mooy pays boo xam ni mun nañu wax moom lu mag Sall créé pays boo xam ne sans loi nii droit loolu mooy Sénégal tey sans loi ni droit mooy tax yow nga jóge sa kër yow Moussa yow Astou yow faatu di dox dem sa yoon ñu mun la kidnappé dugal la ci oto def la taxi yango c'est ça parce que ñàkk fit tamit bokk ci nguur goo xamante ni nii soo jëlee ni di ko tuumaal te mënoo ko yóbbu kaso loolu mooy da ngaa ñàkk fit donc dama leen ñu di leen wax osman Sonko mooy koo xam ne ku ko lekk dee ku ko naan mandi ku ko rey génnum réew loolu mooy la vérité de soos te loolu lañ ko bëgg a xamal ne ko fi mu bëgg a yóbbu Sénégal mooy moom ci boppam la jëm si parce que Sénégal yi xam nañ li ñu bëgg xam nañ ni boddi compté ci biiru xeet bu mu tàmbali ak lu mu def biir Casamance diggante Kolda ñu ngi nekkoon ci biir ba ñuy egg si Vélingara amul mag amul xale koo topp nga torpiller ko fusiller ko violenter ay nit yoo xam ne mosuñu gis luy lacrymogène loolu mooy wan ni intention mooy tas Sénégal te incha allah duñ ko ko may beneen bi ñuy mujjee mooy les données yi ñuy wax les données personnelles nan la ab armée mën a jàppee nit dugal ko ci oto ñu xëy gis ci ay situ nguur gi ay photo ay vidéo ay nangam est-ce que ñun ci état lañ nekk wala nekk ñu ci état ñu dañoo jàpp ni on est dans un pays sans loi ni ku ne ko defoon doole ko yéen ñi ngeen di jël suñu image mais am na loo xam ne dinañ ko génne comment on peut se permettre di def loo xamante bi nii mun naa ni wax ni loolu moo gën a ñaaw ci li nit di def te lu nit wax ku saqal sax nga jàpp yóbbu mais incha allah loolu il le verra beneen bi mooy ñi nga xam ne attaqué nañ leen tey fii ñu taxaw siège baa ngi nii yéen a ko gis ce siège a été attaqué par des cocktails molotov cocktail yaa ngi nii yéen a ko gis donc gendarmerie bi ngi woon fii dans la zone donc lii mooy seen liggéey te bëri na ay bërëb yoo xam ne cocktail moo tax lañ fa def kon mun nañ jàpp ne ñi def lii ñooy def lépp ci biir dëkk bi ba pare ñu bàyyi leen ñoom ñuy taxawaalu ñuy wër ay nit ñu nekk seen kër di leen yee trois heures du matin di leen yóbbu kaso démb ñu jëlee caaro ga caaro leen kaso te xam defuñu dara parce que dañ leen signalé ci ki nga xam ne moom mooy tàllu ko togtal mooy tafi ñooy attaqué ñooy jàpp li ñooy tëj ban réew lañ nekk dañu bëgg sénégalais yi xam ni ñun tooñkat lañu amal affaire tooñkat boo xam ne saa yu ñu réagiré du ñu xool suñu réaction du ñu xool seen action mais suñu réaction la ñuy xool loolu incha allah on le dénonce beneen bi nag ñi ngi naqarlu ñi ngi naqarlu attaque yi nga xam ne def nañ ko ci kër yenn kilifa yi yu mel ni ñoom Cheikh Bara Ndiaye yu mel ni euh, Waly Bodian yu mel ni ñoom Aïda Mbodj yu mel ni kër yi nga xamee ne bi nii ñi ngi joxe seen numéro fu nekk dañ leen attaque attaqué ji Sénégal yi nag bu boobaa lu am ñu xam ne ñoom la parce que fii ñëpp a fi bokk li ñu mën mën nañ lu ko raw duñ leen bàyyi ñuy taal dëkk bi di taal kër nit ñi di taal seen cocktail moo la taf ba pare di jàpp ay nit naan ñi ay commando lañ ñi ay force spéciale lañ te ñoom ñooy def lépp loolu yaakaar naa tey ku xool lii xam ne leer na ci kanamu sénégalais yi ñaaw ñaawteef gi seen côté la nekk te incha allah on fera face beneen bi mooy ñi nga xamee ne bi nii euh, ci troisième mandat soo ko waxee musiba am loolu la bëgg te du ko am incha allah waa ji du bokk du bokk beneen bi tamit mooy gis nañ ay pexeem ci wàllu dialogue bi muy wax yow yaa ngi woote dialogue dialogue boo xamee ne nii yow sax gëmoo ko yow li la fi dese bëriwul ba pare nga bëgg ko imposer nit ñi bëgg jël mbir mi daf ko loo xam ne effet démocratie la di ko fitnaale nit lool nee nañ duñ ko nangu. beneen bi mooy arrestation bi ñu def démb ci Aliou Sané arrestation boo xam ne c'est commandité on était nombreux mbooloo lañ woon nga ñëw taxaw ne Aliou Sané laay laaj maa ngi nii allo Aliou Sané kaay acca demal. bàyyi fa ñëpp ça veut dire que même yow dangay ngay ay nit yi nga xamee ne bi nii ay nit yu jàmm lañ kenn gisu leen ci xeex kenn gisu leen ci xuloo ay jotaay ay waxtaan la ñuy créer ñëpp xam nañ Aliou Sall nu muy représenté biir Sénégal ñëpp xam nañ f taxawaay bu mu am pour tere ko ñetteelu moo tax mu ne dialogue bu def contre dialogue bu ñu war a def pour wax ko moom lu mu war def pour génn ci jàmm nangu koo dégg moo mu arrêté Aliou mais ce dialogue là irrégulier te moom dialogue moo am bu ma ci beneen bi mooy lépp li nga xam ne jëm na aussi ci journaliste yi ñëpp ñu ngi tëj muy ci journalistes yi ñëpp gis nañu ay journalistes ay Serigne Saliou Gueye ñoo xam ne defuñu dara dañoo wax seen xalaat rek ñu ne leen da ngeen attaqué